leen ak jàmm te ngeen abonné like te partagé ci chaîne bi di 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ 24 TV seen bi dox saa su ne dab seen bànneex yow mi am loo bëgg siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkool ak 24 TV ci numéro yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi nga xam ni yéen a baaxoo safoo di seetaan chaîne bi di Tivaouane 24 TV comme ni ñu koy defee ba gàmm gi tàmbalee ba léegi fépp fu njëriñ nekk ak lu baax ak lu jëm ci xajara beeg diine gàmm gi gudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi di leen ko wan ci wàccaayu gàmm gi gis ngeen noonu tabaarakallahu euh, Abdou Aziz Aly Ndiaye comme ni mu ko defee woon daaw nu ko raw la ko defee waat ren gis ngeen noonu taalibe Seydil Hadji Malick yëpp ñëw nañu fii ci dëkku Seydil Hadji Malick bii di Tivaouane muy jël ceeb jël diwlin jël ndawal jël ay nag di ko jox njabootu Seydil Hadj Malick gi nga xam ni dañoo ñëw ngir wuyu si wooteeb Seydil Hadj Malick bi waaye ngir màggal si guddi juddu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu nekk am am gis ngeen noonu mbooloo mu takk ñëw fi waaye ku fi ñëw mu jël ci teraangam jël ceeb jox la yóbbu dalal say gan mu ne lépp nag ngir Seydil Hadj Malick si waaye ngi guddi gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ni man ci laay yokkoo ndax gàmm gu ñëw ma yëg ci man yokk. côté dama gëm ni li may def ci gàmm gi moom moo waral yonent bi di ma fay moom mi borom guddi gi gis ngeen noonu ñëpp ñëw nañ suñu tante yeeg suñu bàjj ak suñu yaay yi ku ñëw rek Abdou Aziz Alé Ndiaye tabaarakallaahu jox la nga yóbbu dalal sa ay gan yóbbu teral sa ay gan waaye teral gan yonent bi alayhi salaatu salaam mbooloo mi yëpp ñëw fi lépp rek ngir tabaarakallaahu dimbali gan yonent bi alayhi salaatu wa salaam dimbali njaboot gi dimbali taalibi Seydi El Hadji Malick Sy comme ni nga xam ne noonu la ko doon defee at yi passé waaye comme ni ko way juróom bu baax ba yàlla na yàlla yërëm ko Baye Alé Ndiaye daan defee mu nekk lu am solo gis ngeen noonu suñu yaay yi suñu papa yi suñu tante yi ñëpp kontaan nañ bég nañ ci li nga xam ne moom la Aziz di def ñu àndandoo ñun ñëpp déglu Abdou Aziz Alé Ndiaye. mais dégg li la barke Serigne Babacar xam naa bu ngeen bàyyi ba ñu àggale liggéey bi moo gën a baax yàlla ñu pare liggéey bu baaxee rek baax na yàlla ñu àggale liggéey bi rek ah stan jóge France loolu moom moom moom moom moom xanaa commande la waaw xëy na commande la de ndax moom bis sa jaaj maa jaral na ko lu ne dama ko ni trente nag nga jëkk a joxe ren nga joxe cinq cent deux nag ñaata mu ne ma tout dépend de Seydil Hadji Malick lancement bi day bëri coow. waaye bu yàggee hoo oh, mooy mucc. ci lu wér. waaye luy dëgg buy commencé lay def nii. waaw di màgg. di màgg di màgg di màgg. waaw mooy yëf Seydi Hadj Malick. radiyallahu taala. mu ma Aziz barke Seydina Muhammad yaakaar fii nekk topp na la ngay joxe teraanga saaku biteeru dawlin enveloppe saaku ceeb biteeru dawlin naru na ناكي دوكونا كر سيرين بابا كر سي عبد العزيز دوكونا كر خليفه بي دوكونا كر سيرين بابا كر سي عبد العزيز دوكونا كر سيرين عبدو دوكونا كر علاجي منصور دوكونا كر علاجي حبيب دوكونا كر علاجي عبدو عزيز نجاي يالنا سا جام ياغ عزيز نجاي لي غا ريينا فورنا كونتان